juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili mbokki euh, bisimila daleen jàmm ci xibaaru marax ki li ci gën a fës élection palub njiitu réew euh, atum 2019 fii ci Sénégal mu mel ni dossier yi euh, ñu fas yéene samp ndënd ñu nga yóbbu seen i këyit tey ci guddi lay tàmbali ñu fas yéene ko tëj ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weexu décembre seen équipe tase na fa ak ñu ci mel ni réew mi pur wala sax parti démocratique sénégalais société civile bi moom des leen boole ci la aju rek ci liggéey pour xool signature yu aju ci parrainage bi ñu ne nag application bi conseil constitutionnel taxawal euh, xel mënees na ko nangu ñoom nag itam euh, rafetlu nañu bu baax ñoom société civile bi euh, niñ leen boole ci mbir mi lu jëm ci wàllum wooteem budget noppal nañu ko ca pencum ndawi réew ma jamono ji ñu def taxaw seetlu bi mun sukkandikoo ci ay meeru ñëng bi jiite groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar liggéey ba def na ko nañu waree ku ci mel ne ndongo sekk itam bokku ca kujje ga mu ne nag naataangoom yu kujje ga ñoom it uh, lañ doon xaar ci ñoom defes na ko moom ay miir ñu ngi itam tontu na Toussaint Manga ci kàddu tuuma ne yi mu yëkkati woon aj ko mm, ci euh, gàll ko ci ndodum euh, Moustapha Niass beneen tonk mbokk yi muy bés bi àdduna jagleel euh, lu jëm ci àq ak yelleef doomu aadama juróom-ñaar fukkeelu yoon ñuy amal li ni mel ñu defaat taxaw seetlu nag fii ci Sénégal àq ak yelleefu doomu aadama naka lay tëddee naka lay doxee ñu yëngu ca mbir ma nag ne am na ay jéego yuñ ci def waaye itam am na ba tey lu des ñu laaj itam askan wi ñu ne lu jëm ci jàng ak njàngale lu jëm itam ci tolloo ci euh, lu mel noonu itam des na ci liggéey bi euh, tàggat yaram ak euh, handball coupe d'Afrique des nations ci jigéen ñi ca Brazza atum 2018 gàcce ngaalaama la ñuy wax sunu yi handball yi ndax itam qualifié nañu final sànq ba ñu duma seen naataango yu Congo ñaar fukki poñ ñaar ci ñaar fukk ak benn Euh, bu ñu ca noppee la ñuy dem ca final ba di fàttali itam ne sunu gaynde itam euh, qualifié nañu mondial bay am ca Japon atum 2019 loolee euh, mënees na ni gulet mbokk yi ponk yaa ngoog ngeen taaxee luy ñëw léegi faram fàcce rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média xibaaru marax yi nanu ko junjee lanu koy euh, doore euh, muy euh, dossier yi aju nag ci ñiy fas yéene samp seen dënd laaj réew mi jongante palub njiitu réew bi ñu tànn ci atum 2019 ñu ne tey nag la liggéey bay door ku ñëw mën ngaa indi sa dossier teg ko fa fa jeex nag mooy ñaar fukki fa ak juróom-benn ci weeru décembre télévision Futur Média doxantu ca conseil constitutionnel tase na fa ak parti yu ci mel ni parti euh, ñi di réew mi pur ak euh, ñi nga xam ne ñooy waa parti démocratique sénégalais Cheikh Diop ak Amadou Ba. ñu nekk fii ci buntu conseil constitutionnel 11h45 sënkam daal di jot ñi ki tey jii bu zéro heure jotee ñi nga xam ne ñoom ñoo nam samp seen lënd ci élection présidentielle yi nag war nañ mën a déposer seen ay dossiers parti démocratique sénégalais daal di teew fiile ci barab bi ngir rek daal di xamle. moom moo war a gunge Karim Meïssa Wade euh, tey euh, su tey tey si minuit nu war a commencé euh, déposer candidature ou élection présidentielle yi donc dossier yi tey si minuit tey bay le 26 décembre mais nun tey jii ko nu fas yéene déposé sunu sunu dossier mais xam nga avant ñu déposé ko da ngeen njëkk a déclaré sa sa coalition coalition nun mu ngi tudd Karim président 2019 donc coalition boobu moo ñëw def déclaration. PDS ak itam PUR. di xamle ni dinañ fi teew bu zéro heure jotee naka noonu itam ñu daal di ciy toftal ni bépp dossier boo xamante ni rek daal di nañ koy laaj ci wàll wi ñoom ñi lee matal nañu ko. suñu ramassé ñu on déjà plus de neuf cent et quelques mille suñu ramassé yi ñuy ramassé on a six missions qui sont en train de ramasser les dernières signatures dana daan passé euh, million de de donc loolu moom vraiment mu musul nekk suñu nu suñu suñu problème. comme document yi moom mat na mat na tubaarkàlla parce que comme ni ñu ko waxee woon rek ñun dañu commencé bi ñeneen ñu commencé gul. parce que déjà dañu maîtriser woon am na loo xam ne daal dañ ko jëli woon daal pour pour ainsi dire donc loolu tax na ñu nekkoon en avance sur le parrainage et aujourd'hui donc on a tout fini on attend que ce soit incha allah pour venir déposer. ku nekk taxaw ngir rek daal di njëkk a déposer parti réew mi mu mel ni si ginnaaw benn yoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moom moo di chargé des élections di xam xamle ni teel a déposer lu ci am solo la. niveau de la coalition dañu bëgg toujours lépp li nga xam ni dañ koy def rek ñu jiitu ci xam ngeen ni. ñun ñooy euh, coalition bu njëkk déposé attestation bi nga xam ni muy attestation buy wane ni ñun dañuy dañuy dañuy dañuy déposé ñu def ko depuis le 30 novembre. noonu ñu jiitoo woon ci loolu nag loolu la fas yéene bëgg jiitowaat ci lii moo tax suba teel dëgg la zéro heure la ñuy commencé déposé mais ñun depuis huit heures ñu ngi sur place. fii ak min wi nag li nga xam ne moom moo di rang bi mel na ni dina gudd lool parti politique yi ak itam coalition de parti ñoom ñëpp dinañ dëkkmal fii ci conseil constitutionnel. Cheikh Diop ñu sant la gërëm la des ba tey ci mbir mi ak société civile bi ñoom dañ leen da woo rek ñu gën a bàyyi gët euh, ci signature yi aju ci wàllum parrainage bi ñu ne nag liggéey bu am solo le conseil constitutionnel teg euh, du suñuy kàddu neenu système itam boo xam ne xel mën na koo nangu euh, ñoom yëngu ci société civile bi itam rafetlu nañu bu baax nan lañ leen woowee ca mbir moomee maanaam daal ñu dugal seen loxo ci gëstu ak saytu bu parrainage bi ñu wax ci leneen mbokk yi muy Mansour Faye ma demoon ca Médina bu Boubacar ca département euh, bu Saint-Louis la moom nag da doon rek fësal ànd bi euh, dox diggante APR ak mouvement national patriotique gaal gi lu aju nag ci caution wu candidat bi di Karim Wade àdduna ci ci teewaayu Ousseynou Diop Habib Seye tey ku mu neex bu neexee nga dem déposer sa candidat sa caution yoon terew la ko bu neexee nga ni candidat la yoon terew ma ko mais ñi nga xam ne ñoom ñooy xool ndax candidature yi baax nañu wala baaxuñu mooy conseil constitutionnel te conseil constitutionnel génnagul liste bi bu ñu demee ba nga xam ne génn na liste bi nga xam ñoom ñooy jongante mais boobaa daañu xam kuy candidat ku dul waaye tey ku neex yëg kenn ko kenn ku neex wax kenn terewu ko kenn ku neex yooxu kenn terewu ko kenn donc ci dëkk lañ nekk dëkk boo xam ne démocratie fi am démocratie boobu permettre na ku nekk def dem mais des na bu demee bay ba génn daañu xool kuy dem ak ku dem kan la yoon permettre parce que kuy taxaw yoon moo lay permettre nga dem élection. Mhm. bu la yoon permettre yoon mooy wax ne yoon permettre la ko. bu la ko yoon permettre la nga nga dem voter président Macky jax na tak parce que ñu victoire bi nga xam ni neexee suñu borom président Macky Sall ñaan nañu suñu borom may ko ko le 24 février bugg ñu dara yàqu ko te bu soobee suñu borom dara du ko yàq élection yi dana am kenn mënul ginnaaw suñu borom kenn mënul tere as élection yi am. ay aywa ñu euh, wax ci leneen muy lu jëm ci watum budget ca pencum ndawi réew ma jamono ji nag ci taxaw seetlu bi dañu nekk ndax noppi nañu euh, ca liggéey ba ay meeru ñi ngi jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar euh, ne liggéey ba lañ leen joxoon ci sas def nañ ko ba mu mat ku jega ci seen wàllu bopp itam yooyee kàddu la yëkkati Al Hassan Ba Pape Sangone Mbaye suñu charte réew daanaka moo encadré ni ñuy amalee wote budget bi nag daanaka daf ko tënk ci délép juróom benn fukki fan naka noonu kon député yi ñu sàkku ci ñoom ñu def ab liggéey bi nga xamante ni dafay tax ñu teew bis bu ne wante itam ñu taxaw ci bu baax ngir mën a saytu budget bi ba ñu yegg nag ci wote bi. da ngeen di xam ni ministère bu nekk te mat nañu fan weeri ministre ak juróom bu ci nekk da ñëw. waxtaan ak député yi parce que dafa am ay commission yoo xam ne dañuy saytu loolu ngeen xam ni kon dañu tàmbali liggéey boobu depuis le 23 octobre def commission technique yi. ab budget bi nga xamante ni voté nañ ko wante dalut xel député bi fare ca jaspora dina ngoo sekk moom mi bokk ci kujje politique bi nee na nag xelam dal na euh, ci liggéey bi nga xamante ni def nañ ko. participer nañ ci liggéey bi muy commission technique yi comme commission finance comme plénière lépp lu ñu tënk daal ak ministre sóoraale nañ waa diaspora mais néanmoins euh, lii ñu gis dalul suñu xel parce que euh, li ñu gis ca commencement ba ba fin lépp jaay doole la xam nga bu ñu demee tey ba Sénégal di bàkkoo budget plus de quatre mille milliards war naa mën a fekk ci lii nga xamee ni moom la Sénégal di dund jaay doole bi ci ni ñu tabaxee budget bi ak ni ñu ko muulee wax dëgg yàlla gis ci loo xame ni war nañ ko mën a dingat yombul waaye xam nga nag ay politiciens foo ñu daje rek il faut ñu xaxarante tuuti xaxaar boobu nag ci la bokk. ñu mën ci jàpp itam ni programme triennal d' investissement prioritaire jaanaka woote nañ ko itam ñu jàpp ko ba atub 2021 programme boobu lee dana tax ba région bu ne fii ci réew mi bàyyi gët nag ci fonds yi nga xamante ni moom lañ ko jagleel. Alassane Ba ñu des ba te ak pencum ndawi réew ma ay meexu ñing moom mi ngi tontu Toussaint Manga mi joxoñ mu tuuma ci doxalinu pencum ndawi réew ma ne ngi njàgg te Moustapha Niass ma ko jiite mooy njàgg ki jiitee groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ne gu nekk parti démocratique sénégalais gi dafa mel ni xamut la muy wax ay meeru ñing ak Alassane Ba ak Pape Sangoune Mbaye loolu dafa juum parce que xam nga itam mbir boo koy wax da koy xam parce que euh, xam nga budget comme ni ma koy waxee dafa nekk loo xamee ni nii euh, nattukaay la rek booy natte ni lii laa bëgg a def soo xoolee budget assemblée nationale amul investissement boo xamee dañ koy def li ci ëpp ay entretien la ak euh, di jënd ay équipement yoo xamee ni ay équipement la pour fii di fonctionner te loolu nag ci assemblée nationale bi Euh, ay service technique ak ay service administratif ñoo koy doxal te ñoo ñëpp secrétariat général moo leen di yor parce que secrétariat général moo fi nekk ku fi nekk président assemblée nationale tam dangay dem ñu wax ci leneen muy Mamadou Mouhamed Ndiaye mi jiite mouvement Rahma ak itam yeneen yi kàngam ñoo nekk ca fële ci Saalum ñoom nag daal jébal nañ Moustapha Niass lu toll ci wala lopp ñaari junni signature ñu ne nag lu jëm ci wàllum parrainage bi seen liggéey la moom mi jiite pencum ndawi réew ma rafetlu na li ni mel ñu teewlu Mamadou Mouhamed Ndiaye bu euh, kuréel gii di Rahma ak Moustapha Niass ak Alhassane Ba président Manas wax na léegi mu ne li nga xam ne moom la jàppoon ci li war a ci région de Kaolack dépassé nañ ko à cent vingt pour cent loolu li muy wane rek mooy région de Kaolack moom leneen la ñuy wax waaye région de Kaolack moom yaakaar naa li olof di wax bu tudd fa naa ne ñeex alors mais ànd ak yooyu yëpp déposé nañu ci wetu président Moustapha ñas trente deux mille huit cent soixante boo xam ne léegi wala mook Lamine Dieng que ne parrainage bi nga xam ne moom lañ soxla woon ci région de Kaolack dépassé nañ ko lu bëree bëri deuxièmement Lamine wax na léegi mi nga xam ne moo doon saytu liggéey bi ci wetu président que ne li Rahma indi kenn indee bopp. dama ne beneen candidat mënu ko am Sénégal yàlla nag moo ko defal ku mu neex noonu la ku mu naqadi noonu la yàlla moo ko sédd ñun nag lii ñuy def muy parrainage bi yaakaar naa ne Saloum kenn demul bàyyi ko. fii ñu toll tey de dañu waxoon ne cent quatre mille deux cent neuf parrain la ñu laajoon ba ñu tàmbaleeg léegi ñu ngi ci deux cent quatre mille cent soixante-seize kon romb nañ ko lu bare nag la ñuy sosoon romb nañ ko. ko xewoon ci boppu xibaar yi tey nag euh, di euh, ñuy màggal nag ci àdduna wërngal këpp euh, lu aju ci déclaration universelle ak ak yelleefu doomu aadama juróom-ñaar fukkeel bi yoon ñu koy amal loolu nag tax na ñu def taxaw seetlu bi fii ci Sénégal ñu yëngatu ci wàllum mbir mi daanaka bokkuñu xalaat ñenn ñi bu ñu ne am na ay jéego yu ñu def ñeneen ña ne daal ba tey am na lu ci des lu jëm ci ak ak yelleefu juin euh, di nga dégg ci xibaar yi ci euh, français euh, maître Pape Sène ak itam kii di Seydi Gassama bu Amnesty International. il faut la volonté politique. mbokk yi ci bés bu mag boobile rédaction bu télévision Futur Média itam dénk na micro askan wi laaj leen ci seenu xalaat ñu ne ñoom it jéego yi am na waaye ba tey am na lu des lu jëm eh, ci wàllu njàng ak njàngale ci misaal benn ci ponk yi ñu fas yéene war a gën a taxaw la ñu ànd ci ak Maimouna Ndiaye ak Gervais Yao ñoom ñoo laaj eh, askan wi seen xalaat ci mbir mi. ak ki ki am ak ki ñàkk yëpp ñoo yem. voilà de même aussi xale yi nga xam ne peut-être euh, dafa am li leen manqué si seen i cër dama pour man ñoom ñëpp dañ leen ware a comme ñi nga xam ne voilà manqué wuñu dara daal parce que parfois dañuy def euh, différence soit kii dafa am voilà ñu considérer ko kii amul ñu def ko de côté. nit dafa war am droit exprimer wu. te mun na tamit am droit ñu fay ko pour bu liggéeyee ba pare ñu war kaa fay parce que liggéey bi moom dafa métti. de problème de droit de l'homme <coughs> les droits de mais bu demee ci li nga xam ne ku nekk moom lañu la war a jox foofu am na défaut su ma jëlee problème éducation bi dama ne ci jàngale bi ak ak jàng mi dafa am droit yoo xam ne respecté wuñu ko ci li nga xam ne ñëpp parce que ñu nekk ci biir. lu ñuy am ci condition yi nekk ci jàng bi condition yi nekk ci dakaar élèves yi nekk dakaar ñoom ñoo gën a baax ci ñu nekk ci ci euh, zone rurale yi waaw yemul daal waaye yemale amul te loolu moo gën a am solo lu am solo mooy fu mu nekk dañuy war a gën a bu ñuy wax droit de l'homme ci vingt et unième bi dañuy war a gën a focaliser wu ci droit individuel maanaam ku nekk nit ku nekk li nga xam ne moom nga war moom nga yellu ñu jox la ko da ngay gis ay ay xale yoo xamante ne dañuy taxawaalu ci mbedd bi comme si ñoom amuñ kenn juru leen ñu leen di bàyyi ñuy yalwaan ñu leen di maltraité di leen dóor yooyu. ay aywa ñu wax dem lu jëm ci wàllum xeex mbëkk mi ak archipelago programme la boo xam ne euh, fukki réew ak ñaar seq dendop Afrique sow jant ñoom la ñu boole boobile programme lañ ci def nag ci koppar ne ñu juróom-ñeent la ci milliards la ñu bëgg rek mooy fexe euh, ba ndaw yi ak képp kuy jaar euh, ci yoon yu jaaduwul di dem nga toog sa dëkk ci noonu dañuy teew teewlu Cécile Tassin Pelzer moom nag mu jiite liggéey boobu aju ci Union européenne ay kàddoom Cheikh yóbbu ak Amadou Ba ñoo ko taataan. Ce programme vient s'ajouter à beaucoup d'autres euh, projets, par exemple pour parler, euh, parler du koppar yi nga xam ne fecc nañ ko ngir rek bile programme mu ngi tollu ci fukk ak juróom million d'euros li ñu bëgg rek moom moo di xirtal ndaw yi ñu daal di rek toog seen réew waaye itam daal di entreprendre ngir mënal seen bopp lii dina mën a tax li nga xam ne moom moo di mbëkk mi wàññeeku bu baax a baax ba benn dootul dem ci beneen dëkk ngir wuti fa leneen li ñu bëgg rek moom moo di eh, ndaw yi daal di toog seen réew itam daal di fiy tekki. de la région à trouver de l'emploi et à pouvoir, comme on dit en, en Wolof, réussir ici tekki fi ñu euh, dem ci diwaanu Fuladu wax lu jëm ci wàllum deer bi euh, ngeen baal ma sax du Fuladu maatam la ak euh, koppar ya deer bi dugal foofee ñu ne mi ngi tollu ci juróom ñetti téeméer ci ay millions ak lu tekk la ñu bëgg rek mooy fexe ba ndaw yi ñoom it bañ di soobu ci mbëkk mi wala benn jafe-jafe toog ca gox ba liggéey fa tekki fa ngala bu ñu noppee ne ñu nañ delloo koppar yi ba faxa ñu ngi yaay jàlloo di xewal bu mag pour région bi di Matam koppar yi waa DER indi leen ngir financer jigéen ñi ak ñi di ndaw ñi li nu mel sax dina tax yooyu la ndaw des ci dëkk bi émigration clandestine bu leen dem sonal daal di wàññeeku xeex tamit li di ndóol ak xiif gi ñuy nemmeeku yenn saay ci àll bi. ñiy jot xaalis bi du xaalis bi ñu mayee kooku leeral nañ ko ñëpp. xaalis bi nga xam ne daf la euh, dafa ñëw ci yow pour nga démarrer sa activité. nga soo nekkee xale nga am vision de liggéey ñu jox la financement mun nga liggéey au moins doo dem la l'aventure comme ça comme ni ngeen gisee ni ngeen gisee. ay man émigré la man xam naa ci lu bare loolu moo tax su xale yi suñu amee ay xaalis incha allah dañu mu liggéey sur place. lu toll ak juróom benn téeméeri million ci suñuy koppar lañ leen bëggoon a jox waaye gouverneur bi plaidoyer bi mu def tax ba ñu yokkal leen yi ne koppar. li nu mel baax lool ci dëkk bi di Matam. 850 millions de francs CFA si région Matam si population yi ndaw ñi ak jigéen ñi. culture bokk na si élevage bokk na si artisanat bokk na si pêche bokk na si transport bokk na si et euh, région bi département yu nekk am na euh, seen wàll. waaye élevage moo ëpp teg ci pêche après transport artisanal. leb bor fay li nu mel dina mën a tax ñu mën a wéyal bile programme. ñii autorités yi ne dinañ ci xar seen tànk tubay. et de toute façon dinañu rembourser parce que xaalis bi jógewul ci keesu DER dem seen loxo xaalis bi day jóge ci DER dem ci institution de finance de microfinance ñooñu ñooy jox nit ñi te xam ngeen ne ñooñu booleen leen leen xaalis <laughs> di leen ko fay. alors euh, ci wàllu boobu appel bi ma lancé appel euh, ngëm la moi j'ai confiance. aux acteurs de Matam. délégué général bi ak équipe boobu nag amoon nañ tamit ay visite économique ci diwaanu Càmbe ngir na xool bu baax a baax doole ji nga xam ne région bu maatam am na ko rawatina ci wàllu mbay. aywa Pafara ñi ñu sant la gërëm la ci diwaanu baax ñi moom taalibe muritiyya ñoo fay sàkku euh, kërug Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ne kër googee euh, lu jaadu la ndax itam euh, dëkk boobu di Bargny sëriñ bi jaaroon na fa bañ doon màggal sa xew-xew boobu ci lañ yëkkati kàddu yi ci teewaayu Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba comme ni ñuy ko nemmee ko ci diwaan bu nekk lii di communauté mouride bu Bargny nag bëgg lii di kër sëñ Touba fii ci seen diwaan bi ñu ngi ko xamee nag ci bëccëg gi ñu doon màggal kii di jaar jaaru sëñ bu mag bi foofu ca Bargny. boo jógee Dakar ba Touba dëkk boo dem am na kër Serigne Touba Bargny kese moo amul kër Serigne Touba ay taalibe fi nekk yu am volonté yu bëgg liggéeyal Serigne Touba dajale seen alal pour liggéey kër Serigne Touba lu toll ay ñeenti juróomi at. te mënuñoo am benn signature bi nga xamante ne moom la ñu war a mën a defal pour ñu liggéey ko Serigne Touba ñuy ñaan di woo état bu te ne mën nañoo dimbali murit bu bari ñi communauté murit bu bari mbooloo mu takk ñoo xamante ne liggéey Serigne Touba rek lañ mën a ñor nañu ñëw dimbali ñu defal signé ñu papier bi ñu liggéey ko Serigne gannaaw bu mu ñëwoon teewee si ndaje mi nag kii di maire bu Bargny engagé wu nag ne dina gunge lii di communauté murit boobu ngir ñu mën a taxawal seen màkkaan moomu taxawaayu gis nañ ko fii ci Bargny muy ñoo xam ne dañoo am pas-pas dañoo dëggu am loo xam ne ni xam naa ne ñor na leen muy kër sëñ Touba ñu def ko fii ci Bargny imam bi mu fi euh, bi bu mu fi mujjee sëñ Babacar Mbacke fële na leen ca euh, place publique ba waxoon nañ ci ma waxoon que ni lépp lu ma mën dinaa ko def ci conseil municipal bi nga xam ne ñoom ñooy décider pour ñu mën a def fii muy kër Sëñ mu doon nag askan wu murit di yàkkamti lool nag ñu jagleel leen ab terrain nag ba ñu mën a door lii di liggéey bi ci ni mu gën a gaawee matière am ak euh, handball coupe d' afrique des nations ci wàllum soxna yi muy am ca Brazza atum 2018 euh, sunu gaynde yu jigéen yi nag euh, fi mu ne nii ña nga ca final du mën nañ tey ji ci ngoon seen naataango yu Congo mi doon sax dalal bile xew-xew ñaar fukki poñ ak euh, ñaar la ci ñaar fukk benn loolu aju woon ci demi-finale bi euh, ñoom nag sunu équipe nationale bi euh, jëm ci wàllum handball ci soxna yi loolu lay tax itam ñu dem ca mondial bi ñuy amal Japon atum 2019 ñu ne nag guléet la ci sunu gaynde yooyu ñuy amal final bi euh, ci euh, àllarba ji lay doon ki euh, nañ tase ak digg Cameroun wala Angola ndax jamono ji ñuy àddoo ñoom ñaari équipe yooyu ñoo nekk di jàkkaarloo ci demi-finale bi bu nu jugee nag euh, ci euh, tàggat yaram bi di handball ñu wax ci leneen muy triathlon ak itam euh, xew-xew bu am solo boobu ñu amaloon fii dalaloon ci Sénégal moo ko doon dalal ci dibéer gi nag ñu ne nag réewum Sénégal daal am na ca ay ndam ku ci mel ni Birane sàmb ci góor ñi ak itam Aram Gueye ci soxna yi duñ ci sori dañuy teewlu kàdd yokk Cheikh Saad bu Jara ak si Cissé athlètes yi nga xam ne dañu joge au Japon ñuy jógee Syrie ñuy jógee France ñuy jógee euh, Irlande Luxembourg euh, yombul woon mais alhamdulilah góorgóorlu nañ bi nga xam ne daal ñoom bu ñu ñëwee ils ont joxe nañ fi seen euh, avis vraiment positif. vélo mooy suñu premier problème parce que natation bi géej gi mu ngi fi piscine olympique mu ngi fi mais sunu problème principal mooy vélo. parce que boo ñëwoon xool si ah, eh, élite yi vélo yi ñu yor fii ak ñun à côté vélo yi ñuy yor vraiment mënuñu mënuñu compétir ak ñoom parce que niveau bi écart boobu lañ ñuy dañuy vélo bi dañu fay bàyyi à chaque fois bi ma accompagné deux internationaux Anta Ndiaye ak Mamadou Ndoye Diop au Ghana problème bi ma bi ñu fa am euh, natation bi ñun ñoo leen jiitu mais bi ñu jëlee velo ghanéens yi dañu bàyyi ci gannaaw parce que ñoom ison ont des vélos yoo xam ne mënuñu woon compétir ak ñoom donc ñun daan ñu ngi ñaan ministre bi mu jàppale ñi ci côté boobu. moo nekkoon Seynabou Ndiaye Guèye nekk itam vice-présidente fédération euh, Sénégal bu triathlon. ñu euh, wax ci euh, beneen tàggat yaram muy rawante fas kuréel gi lëkkale nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yor fas yi ak itam ña koy ñay dox ca mbir ma ñu ne nag dellusiwaat nañ ci jafe-jafe yi ni jànkonteel bu nu sukkandikoo nag ci Abdou Khadre Mbaye bokk ci groupement boobule muy sàkku nag ci jëwriñ bi ñu denk wàllum tàggat yaram ngir mu xoolaat seen mbir mi jàppale leen ci jafe-jafe yi ñu teewlu ko Cheikh Saad bu Jaraak moo Diop. sunu CNG bi c'est plus de quarante membre yoo xam ne 4 wala cinq personnes ñoo fa nekk yoo xam ne mën nañ am xel xalaat boo xam ne dañ ki course yi dafa sooxe prix yi baaxul on a un problème suñu 2 pour cent jotuñu ci président signé na ko te jotuñu ci course yi ñu ngi ko yóbbu nawet ñaari at a nii ñu ngi ñuy dawloo ay Fatick benn nandu foy foy ci nawet donc daaw rek bi arrivé bi amee y a un problème parce que photo finish bi marchul da doon taw euh, li ci dolleeku mooy contrôle page bi ñu def bii passé ñun nekkuñu fi pour xas wala ŋàññi kenn du loolu principe la ñuy défendre mbir mi man bu ma dalee na dal sama kaw bu dalee keneen na dal ci kawam léegi am na ñu mu dal ñu ne du dal seen kaw d'accord naa ils ont fait ce qu'ils ont fait. aywa mi ngi noonu fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute gi Sara si seen na ci xibaar yi ci français desandi leen ak programme yi télévision Futur Média ñu fanaan jàmm.